ñu yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santen ci yàlla bu baax te buñ ci kenn mag sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ moo gën gaaw ci defaru doomu aadama mbokk yi tey ji ñi am pas-pas bu sell ak yéen ju sell incha allahu ngir fexe incha allahu jàngat genn xasida ci xasida ak Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu yi di xasida goo xam ne dafa jëm ci taw tawasul ci tur yàlla yi nga xam ne ñooy quatre vingt yi te sunu borom wax képp ku koy ñaan na ko woo ci turam yi walillahi lasmaul husna fadhuhu biha kon na xasid la goo xam ne ñaan la lépp loo xam ne waaye ni na ko ci wala am na ab aajo moo xam aajo bu ndaw la wala ajo bu digg doomi wala aajo bu mag lépp soo jàngee xasida gi sa borom dan la ko defal su dee kuy tub ku bari bàkkaar lool ba tey bu jàngee xasida gi yéen ci yàlla jéggal ko bàkkaaram ak bàkkaar ba noom mën a toll sa dana ko jéggal kon xasida la gu jëm ci ñaan muy tawasul ndax tawasul la xeeti ñaan la waaye jëm ci itam di tuubal yàlla wane na ku def bàkkaar la ku tëq bàkkaar la moom sëriñ bi saxal ko ci boppam waaye moom mostu def sax bàkkaar waaye comme tuub alquran digal nañu ko ci barab yoo xam ne kenn mënu koo takk yonent bi sallallahu alayhi indi ci ay hadith yu bari bari bari yoo xam ne moom it kenn mënu koo takk alquran kon dafa saxal ne tuub lu lu war la ci jàmm bi farata ci moom heure bu ne mu di ko def comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne nit ñi danaa jéggalu yàlla téeméeri yoon kon nag leen jéggalu yàlla lenn ci borom xam wax téeméeri yoon waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam li may jéggalu borom dana yëpp téeméeri yoon kon su ko defee ñu bàyyi ci xel ne tuub moom yàllaa ko digle yaa ayyuha allasina amanu tuubo ilallahi tawbatan nasuhan kon nag sëñ bi day adressé boppam ne moom amut ayib amut bakkaar waaye yow mi jàng xasidi gi yow la yërëm waaw xamoo ni ñuy tuubee ak noo koy defee mu bindal la xasida goo xam ne day wane ne moom mooy tuub déedéet yow mi koy jàng yaay tuub waaye sañ moom mosu de bàkkaar su ko defee xasida goo kon lañ ñëw kem sunu kàttan ak sunu déggin ngir leeral leen ko ci ay baati olof xasida gi moo tudd nan haasa matlabul maqaril asna fil iqraari wa tawasulu bil asmail husna xasida gi nag xasida gu yàgg-yàgg la ci xasida yi sëñ Tuubaa njëkk taarif ci la bokk incha allahu mu ne bisimillahi sos na ma wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindéef ci àdduna arrahimi buur bay ajiram ku ko sob ci àlaxira wasalla yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wasalama tamu dolli góolu tasliman ak dolli góolu mu ne gannaaw bi ma tàmbalee bisimillahi rahmaani rahim nga xam ne moo ëmb lépp alquran lépp booy xool sekkerem boo ko doon laajte fan la nekk dañ naan la mi ci bisimillahi rahmaani moo tax lu mu mëntu faj amut turu yàlla wu ne boo koy wirda la nga soxla man naa lank ni du la ko jox waaye bisimilahi rahmaani rahim moom ku ko yombal di wax amul aajo jum mëntu faj te lépp lu nit di bëgg aduna ak àlaxira mi ngi ciy bisimilahi rahmaani rahim mii si naa li neen amul jàngoro joxoon mënu koo faj alquran lépp bi buy fanaan ci fatiha fatiha yëpp mi ngi ci bisimilahi rahmaani rahim waaye bisimilahi rahmaani rahim bu ñu laajee ana ay secret fu ñuy fanaan mooy ci baag yi nga xam ne dafa nangoo tawaadu toroxlu moo tax suñu borom yëkkati ko saa yooy jàng baagi ngay jëkk jàng bismillahi rahmaani rahim yàlla muy xëy walaa kon bépp mi ndéef ci na ña koy weddi ña ko gëm ña mooy ñëpp waaye mooy ajëram ko ko sob ci àlaxara mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci kaw yonente bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad mooy ku yàlla sant léppam waaye na ngay dolli wóolu jamono ji nekk di ko dolli ak kóllite ak sécurité moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xaasa xaside gi nag matlabul maqari mooy càkkuteefu sax saxuwaay la al asna la gën a kawe fil iqraari ci saxal bàkkaar ya wa tawasuli ak tawasul muy jottaliku bil asmaa yi di jaaree ci tuuru yàlla ya alxusna ya da way rafet doo ko firee ya gën a rafet kon tëgg gi dafay gàcc tuuru yàlla moom yëpp rafet kon nag ne alxusna ya rafet day ya da way rafet mu ne xasida gi lu nit di sàkku la gën a kawe maanaam boo taxoo xasida moo nekk nii maanaam càkkuteefu saxuwaay la gën a kawe maanaam saxuwaay ba gën a kawe soo soo fa bëgg a yegg bëgg bëgg fay sàkkoo yegg te fokk nga am foo jaar mooy xasida gi kon day wane ne moom jaam la comme jaam ñëpp boo demee ba am li ko yàlla may lépp li mu ko defal lépp ba mu tiim mbindeef yëpp ba mu ne kataba laahu tabaaraka moom Sëñ Tuubaa ne am na kaatiba asul hurufi qaddamahu laahu ala jimal alamin Sëñ Tuubaa dafa wax ne yàlla dogal na ne ki bindee araf yi man Sëñ Tuubaa yàlla yëkkat ma teg ma ci kaw mboolem mbindeef yi kon day wane ne moom mbindeef la waaye nag fokk comme bindeef la te bindeef day juum day fàtte day mooy xeeti mooy yëpp day daje ci moom mu askanee leen ne daa def ay bakkaar yoo xam ne da saxal ci jëmmam di te ku saxal ak bakkaar sa jëmm ji wala nga def loo wartu def war ngaa tuub dellu sa borom boo bëggee yegg fa gën a kawee fa gaa yàlla yegg mu taalifal la xasida nag di tawsul ci turu yàlla yi rafet yi su ko defee wane ne daa am ay bakkaar di ci tuubal yàlla di ko jéggalu di def tawaa tawaaduan lillahi waaye tawaaduan bi daraat toroxlu koo xam ne dafa am lu muy sàkku bi dara talab mooy ko xam ne toroxlu koo am lu muy sàkku ca borom subhanahu wa taala moo tax mu ne xaasa xasidi mat de matlabul maqari mooy càkkuteefu saxuwaay la al asna la gën a kawe maanaam saxuwaay ba gën a kawe soo koy sàkku mooy xasidi gi boo ñëwee danga ko am fil iqraar ci saxal bàkkaar ya maanaam kon day wone ne dafa tuumaal ne boppam def na ay bàkkaar ba di ko saxal moo tax mu taalif xasidi gi ne ko am ay bàkkaar ñëwal fóot ko moo ci gaaw boo bëgg sa bàkkaar yi yàlla sippi yëpp bay ba noppi yéegal la fa gaa yi yàlla yegg tabaarikallaa na nga xam ne kon xasida gaa ngoog mu ne wa tawasul ñu def ko ci tawasul biir asmaa yi ci tur yi alxusna yi di way rafet xasida gi moo tàmbale fan mu ne qaala ubaydullahi ahmadul mulim mutaassisu bi asati rahim gis nga tur wu njëkk a adressé bopp mooy xobaydu xobaydu ñu jàng arab xam nañ ne tasxiir la mooy ak si njaam ak si njaam lañ koy wax bu dee abdullahi mooy jaam boo xam ne digg ma boromam du tooñ borom mukk te yàlla gërëm na ko xobaydu nag mooy ko xam ne ci tooñ rek la dëkk te bu ne rek ku suuf lay doon waaye yàlla nee na ñi nga xam ne xobay du la sax xobay du lañ sax man yàlla du ma leen tooñ ah bi salaami lil abid wa ma rabbuka bi salaami lil yàlla nee na xobay du sax du ma leen tooñ waxuma la ñi nga xam ne ay abid lañ ay jaamikati yàlla lañ ba yàlla nagu seen jaam waaye xobay du sax suñu borom leen du leen tooñ li nga kon xasida yim taalifi ci géej gi a gannaaw géej gi da ngay dégg ma naan abdullahi ndax samaytani bi abdika alqadimi yaa man yuquudu li ibsaaratin tadum kon loolu yàlla ko ko tuddee al abdul qadim waaye xasida yi njëkkee gi day tuumaal boppam ne moom xobaydu la boo demee ci matlul fawsani inni xobaydun haaxuna qaribu maa ngi fii ci Tuubaa ci roon ak garab rek doon ko tumuranke moo tax bi mu tàmbalee waxut qaala abdullahi waaye comme day tuubal yàlla mu ne qaala xobaydullahi doo ko indi turu adresse ak boppam qaala wax na kan moo wax mu ne obaydullahi ak si njaam ak yàlla ak si njaam kan la ahmadu mooy ahmad turam kooku mooy kan al mulim aji dikki la lañ ko yeddee mulim arab du ko lu dul koo xam ne day def luñ ko yeddee heure bu ne waaye saa yu ku la fekkoon ngay def bët bu set lu bon lu bon waaw foo nekkoon foo xam ne kenn bëggul fu lu bon te saa soo ko defee wóor ñu yedd la kook la ñuy wax mulim wa huwa mulimun gis nga ki nga xam ne moo yonent yàlla yoonu sax mulim la ko alquran tuddee lu tax lam def moo tax ñu yedd ko mooy ba mu waaree ni tamit ñi bañ mu gàddaay dem taamul ci ndigal ta ab wartu gàddaay taamul ci ndigal suñu borom kooku mu liim la tuddoon wa huwa mullimun falawla annahu kaana min al musabihina la labisa fi batni ila yawmi yub'asun moo tax Sëñ Tuubaa ne ne wax na ak si njaam turam mooy ahmad ahmad mii de aji dikkee la lañ ko yeddee waaye nag al mutaassisu aji làqu la al mutaassisu aji teddee la bi xessati rahimi ci teddangeek yàlla muy ajaram kooku sob ci àlaxara nee na gannaaw bi mu doonee hubaydullah turam di ahmad doon mu mullim koo xam ne heure bu ne ci luñ ko yeddee rek ca la nekk makkaar rek ci la nekk nee na waaye de na ngeen xam ne su fekkee am na lenn lu ko mën a génne ci bakkaar yooyu nee na du lenn yërmande yàlla dabaatal ko rek moom daal buy làqu su fekkee maanaam am na ak tedd gi ak tomb ca yàlla ndax wali lay sa tool li rasul wali moom ne yàlla neen maa moom tedd gi ak sama yónente ak jullit ñi nee na nag yàlla mi tudd rahim ci turam wii di a arahim nga xam ne mooy ajiram ku ko sob ci àlaxara yàlla nañ ci boole nee na yàlla de dafa xool ci turam woowu rek dal di ma dugal ca biir tedd nga am ko ma làqatu ca waaye nag terewul nag bu ni ma ngi def ay bakkaar bakkaar moom ci lay dëkk yàlla daal moom moo xool ca coobaram la ko neex rek dugal ma ci turam wi di arahim moo tax mu ne al mutaassisu kii di Ubaydullahi di ahmadul mulim aji teddee la bi hissati rahimi ci tedd nga yàlla muy ajjëram ko so kooku sob ci àlaxara daan ne alhamdu mboolem xaaji cant ñeent yëpp lillaay aji sax la ñeel yàlla ala si yàlla mi nga xam ne xat satara sutural na bi fadlihi ci ngënee la maha ibi samay ayib xanil wara wëlis mbindee fi ba kenn xamul ko ci xataa yeesu noo ba ñu njorto ñoom bindeefi ne ana nii man sëñ tubaa soo diini borom diina la ba tax na waxaa samoo te ñu màggal sax nii samay mbir ku la xiini bépp bépp jamono te max ana nii ànd naka man sañ tubaa aqabaxoo maay ki gën a bon min kulli la im ci bépp aji ñaaw jukko subhaanahu waay waay waay seral naa lépp lu yellu ci moom subhaanahu tudd na ma sellam rabban buur kër yi man bay aji tedd wax kim tey aji xarit mu ne waay waay waay mboolem ka cante ñeent yëpp ñeel na yàlla yàlla rek ci lay dellu cant yëpp boo ko ndaqee day delluwaat ci yàlla cant gi yàlla sant boppam ci alhamdulillahi rabbil alamin ci alhamdulillahi lazi xalaqa samawati wal arda wa a sulumaati wa nuur suma la seen ko robeer bi yax di doon cant gi mu sant ab jaamam neex mal xabdu inno awaab cant gi jaam yi santante seen biir ak cant yi nga xam ne moom lay jaam ñii di sant seen borom subhanahu wa taala te lépp xadis leeral ko ak alquran mu ne cant yam ñeel na yàlla mi nga xam ne moo nëbbu samay ayib ba kenn xamul ko ci mbindeef yi lañ jot rek mooy sëñ Tuubaa de ku am diina la ba tax ñu may màggal xam nga léeg-léeg boo amee diine nit ñi dañ lay fonk dañ lay màggal sëñ Tuubaa ne ah ñoom kat dañoo jàpp ne borom diina laa ba tax ñuy màggal sama biir bu ne fekk kuy ku yées la gën a man ab kàccoor dëgg laa <laughs> waaye maa ngi tudd sell ak yàlla moom muy buur bu tedd koo xam ne kërim la man la im la kërim bu ñu ko waxee safaana mooy la im mooy ku ñaw jukko koo xam ne xamoo dara ci moom lu lu bon rek kërim nag mooy ko xam ne lépp mu baax xakim na mooy ko xereñ mu ne xam nga yàlla moom moo xam lu nëbbu ak lu feeñ ndax yaa man asaaral jamila wasataral xabiya am na ñoo xam ne yàlla da lu ñuy wax maanaam ci soo doon misaal yàlla dafa am tànk day jël tànkam dëgg seen lu bon kenn du ko xam su ko defee feeñal seen kaw gi yëpp ak taar nit ñi taar ak lay gis ci ñoom lu baax la ñuy gis ci ñoom fekk seen biir ga yàllaa ko nëbbu day sàmm ci yàlla mu ne cant ñeen na yàlla mi nëbbu ci mbaaxam nga xam ne da koo xool mu neex ko rek mu nëbbal ma sama ba kenn xamul ko ci mbindeef yi mbindeef yi njort am diina laa ba tax ñi may màggal heure bu ne fekk maa gën ñëpp maa ànd ni ànd koog naka man Sëriñ Tuubaa ak moom maay ki gën a bon min ku lu la im ci bépp aji ñaaw jikko subhaanahu tudd na ma sell moom yàlla rëbban mbir mu muy buur kër yi man bay aji tedd wax ak kiim tey aji xereñ ci mu ne suma ganaa ba ma sante yàlla mi mi def loolu salaamaani dollik terlam ak dool dollik wuulu bilantihaa i ci lur muy am yema koy alal karimi yàlla na ko sotti ci kaw yonente bi nga xam ne mooy aji tedd ji saaxibil xayaa i mooy borom kersaka muhammadin turo mooy muhammad sil xuluqi mooy borom jukku ja al asim gay aji màgg wal ali salaat gën a ñëw ba ci waa këram ñëpp sax bi ak saabaam ja sawi taslim yi ñay borom mucc ci bépp ayib mu ne gannaaw ma sant yàlla mi mi ma defal loolu nit ñi jàpp nañu ko am diina laa ku baax laa fekk maa gën a ñëpp waaye mën na bu sama ayib ba kenn xamut ko feeñal sama lu baax nee na gannaaw gi nag maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dagaan ci yàlla mu julli julli gu dul am yemukaay ci yonent bi nga xam mooy aji tedd ji mooy ku mën a matal kóllëre ci képp kum séq kóllëre ci mbindeef yi karimun wafiyun karimun waxidun wax du ata loolu lay fii boo demee ci muqaddamaatu am daa da nga ko ci fekk mooy borom kersa daanaka léppam kersa la waaw yonent bi salaas lépp kersa te yonent bi ne na diina maanaam mooy genn wàll kersa maanaam kersa moom yiw yëpp ci lañ nekk am kersa waaye nag la ci gën mooy jigéen jigéen moo ci gën ak gune gune daa war am kersa waaye rawatina jigéen jigéen lañ gën soxla ci kersa moo tax jigéen ba amee kersa rek baax ay ku gën a yiis mooy ko ñàkk kers yàlla ñu ci yàlla musal léppam yiw la kersa kersa amul ngànt léppam yiw la ndeysaan nee na mooy borom kersa léppam kersa lool nee na turam mooy Muhammad mooy borom jukk ju màgg ja yàllaa ko togg na wa innaka la xalaa xulqin yaay ki nekk ki gën a kawe ci ñoom waxtu na jukko maanaam jukko yi suñu leen doon wutal place nga xam ne teg nañ jukko yi leen yaa toog seen kaw mooy borom jukko ju màgg ja waaye salaat gi na ñoo ba ci waa këram ak saabaam yi nga xam ne borom mucc leen ci bépp ayib mu ne xaasaa yégal ne man suñ tubaanaan li ma tax a jóg tey sama uksif tiif li tax ma bëgg a taalif xasida gi xaasaa yégal ne waqas di sama intervention waqas di sama yéene waqas di ak sama jubluwaay alqasdu luxa la luxa la mooy anniyatu mooy sama yéene rek al ma tey jii hamdulillahi mooy cant yàlla ci sama xol wa sukuru ak cantam ci samay cër jàlla moom mi aji màgg bila tanaahi cant gudut am daytal yemukaay mu ne tey nag li ma tax a jog mooy sama yéene dëgg mooy di sant yàlla ci samay xol cant yàlla ci samay cër kenn sama kattan cant xool xol goo xam ne ak canta ak cër goo xam ne duñ ne fii lay yem duñ am fu muy ñu ne ko kooku ngay cant mooy kan mu commencé di tudd borom bi subhanahu wa ta'ala ci turam yi nga xam ne bi ci njëkk mooy allahu arrahmanu arrahimu almaliku alqudusu assalaamu ak muuminu muhayminu ak asisu ak jabaaru ak mutakabiru ak mutakabiru gis nga waaye gis nga nim nim teglante tur yi huwa al ilahu mooy allahu rek ba tey waaye nag xërëm yi ñoom danañ tuddee ilaahu mooy jaamu ko te xërëm yi danañ tuddee seen xërëm yi ilaahu waaye duñ ko tuddee allahu mu ne kooku nag huwa moom al ilaahu mooy buur alxaaliqu mooy aji bindi ji arrahmaanu mooy kii xéwlaa kon bépp mi def caat mooy aji yaram ku ko soob ci àlaxira almaliku mooy buur addayaanu buur bay fayaakoon lu waaye def rek mu fayal mu ne kooku nga xam ne sama yéene tey mooy cant ko samay xol ak samay cër moom mi aji màgg cant gu am daytal nee na kooku ngeen xamoon mooy buur mooy ki sàkk ñëpp inna ilahakum ilahun wahidu laa ilaha illa huwa rahman rahim yàlla moom kenn képp la mooy aji bind ji mooy ki sàkk lépp te xoolu ko fenn waaye mooy ki xéewalaa kon bépp mbindeef ñëpp moo leen di xéewalee bul génne kenn waaye ku am yërmande ëllëg yomal xiyaam ba tàbbi ci aljana mooy ki la yërëm ci mbaaxam waaye mooy buur bi nga xam ne nguuram du folleeku mukk waaye mooy kon bi lu waaye man di def ci lu baax mu fay la waaye buur boobu mooy buur boo xam ne lu waaye man di def itam ci lu bon itam kasaalika nag noon la la koy fay. kon nag kooku mooy allahu tudd arrahmaanu tudd arrahimu waaye tudd almaliku almaliku mooy buur boo xam ne du tooñ kenn waaye mooy buur bu màndu buur bu sell koo xam ne tëkkul dara moo dafa jàng ci alquran bii ne baatam maliku kuddus la ciy teg ndax comme xam ne ne buuru adduna yi dañoo salte dañoo mën a tilimal moom nag dara taxut ko dara dafa set wicc mooy buur bu sell la koo xam ne dara dara taxul ko moo tax mooy almalikul quddus waaw moo doon buur moom nguur guy sax waaye itam nag mooy ku sell ki ma tax kon mu ne almaliku ad dayaan mooy buur ba nga xam ne fayaakur la lu waaye def rek moo la koy fay mooy borom bi subhaanahu wa taala yàlla na jëflanteeg ñun ci ak mbaaxam huwa kooku assalaamu mooy jàmm almuuminu mooy aji wóoluloo ab jaamam bu ko neex alqudusu mooy sellakon bi huwa moom al muhayminu mooy aji jàkkaarloo lépp la ñeel na ko an nufuusu bakkan yëpp huwa moom al su mooy aji tedd ji wa huwa te moom al jabaaru mooy mbër dëgg-dëgg tigi wal mutakabiru mooy aji rey ji huwa moom bu ngeen ko xamul al mooy jéggale bi gis nga lii yëpp ci turu yàlla yi nga xam ne mooy al asmaal husna la nga wooteen wu rafet yi xam nga bi mu ne maliku la ci waroon teg mooy quddus waaye dafa bëgg wëyu fees dell moo tax nga au lieu que mu maliku quddus waaye dana maliku dayaanu daa dina huwa salaamul mumin quddus waaw ci wéy wi la rek waaye maliku mii ci tur yàlla yi ni mu teglante 99 quddus moo soo doon teg mu ne kooku mooy salaam mooy yàlla nga xam ne yonente bi nee ne dénkaan ne woon na mujj jamono ñi di ko siikar lu bari bari ndax fu ñu koy siikaree rek jàmm rek moo fay am turu yàlla wi di salaam waaye bu buñ ko waxee ci nit nga xam ne nit nii rek lañ ko wax day tekk ku gëm yàlla waaye suñ ko waxee ci yàlla ci tur yàlla mooy kiy jox ak sécurité ak kaaraange ak jaamam bu ko neex waaye alquddu su mu bàyyi ko ci xaddasa mooy ku taqul dara sell wicc almuamir mooy ko xam ne dafa mel ni ku ku jël ab siisam rek di gis lépp lu mu sàkk ku bi waaye mooy ki nga xam ne moom moom bakkan yi yëpp lépp kenn ku nekk la ngay noo yëpp xam na waaye alasiisu mooy ku tedd ki waaye aljabaaru buñ ko waxee ci ku dul yàlla mooy kuy mbër mbërlu waaye mbër mu am kattan nga xam ne ku mu jàpp daan la kooku mooy yàlla al mu mutakabbir mooy ku rëy nag nee nag kenn du ko xëccoo man ndax koo xëccoo man rek ma sëloo la sama safara alxafaaru nag si xutul mu baalax la mooy koo xam ne jiggalaa lu ko waaye man di def rek ko innahu wal xafuur rahim waaye kooku wal mubdi mooy aji sos lépp mooy ki nga xam ne mooy ki sos lépp gis nga ku la wax ne toqontal ma yu mën naa dem ba nepp suux nepp nekk lump dem ba yàlla wodd ci ay yax mu ji def ci lam cay def wal ci ak roo mu nekk doomu aadama di dund tabaarkalla dem ba doon mag mu delli faataat ku du làkk ci biir suuf kooku mooy almubdi waaw fa kasaw naa al insaana laxman suma ansaxnaahu xalqan aqra kooku fa tabaarkalla ahsanul xaaliqiin waaw kooku mooy suñu borom subhaanahu wa taala moo tax ne huwa moom almubdi innahu huwa yubdi wa mu ne wal mubdi mooy ki sos lépp waaye al musawiru mooy aji posene ji mooy aji melal ab jaam nu ko neex ci biir yaayam al musawir mooy ki nga xam ne liir bu nekk ci biir yaayam lépp foofu la koy programme kii day gàtt wërsëgam ñaata at lay dund day xeesam day ñuulam loolu yëpp day guddam lépp lépp foofu la koy programme waaye waaye kii kii kii teel a takk soxna la bu ko defee nag kenn ku ne commentaire yi waaw kii moom gars yi commentaire rek huwa allazi yusawirukum fil arhami kayfa yasaaw masiatullah la mooy ki leen di melal moom yàlla ci seen biit ruxumu yàlla ci seen biit ruxumu yaay yi ci seen biit ruxumu yaay yi nu ko neexee ci seen biit ruuxumu yaay mooy ki leen cee mellal nu ko neex nu ko neex mu def leen almusir mooy aji mellal ku ko neex mooy aji mellal ku ko neex liir bi nga xam ne moo nekk ci biit yaayam al alim mooy xamaa bi mooy ki xam lépp wa anna laaha qad ahata bi kulli shay'in ilman albaariwu mooy aji bind ji ba tey alqahaaru mooy notaakoon bi wal xakiimu waaye nag mooy mooy aji xereñ moom yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne mooy albaari yu mooy ki bind lépp waaye alqahaaru mooy ki noot lépp waxal xayri foo xam baat yi du noteelu koo xam ne rek dafay fekk ay jaamu ëpp leen doole noot leen déedéet mooy ki sàkk lépp noot leen te dara taxut ko mooy ki nga xam ne mooy aji xarañ ji mbir mu ne fa mu nekk rek la ko teg waaye huwa moom almaisu mooy aji teddal ku ko neex waaye wal musulu mooy aji toroxal ku ko neex yépp masiatu laa la ku am tedd nga yàlla la teddal bul jàpp ne yaa nekk ca nguur go ba tedd déedéet yàlla la teg waaye boo ko xamee nag te nga koy jox xaq ja ca war dëgg-dëgg di ko sante yàlla ku torox itam kasaalik nag yàlla la toroxal moo tax yàlla ku muy toroxal turam wii waaw turam la lay toroxale waaye ku muy teral itam turam wii la lay teral di almoisu almoisu lay safaana mooy almusilu waaye wasamix mooy aji dégg lépp la nga waxagul sax xam ne ko innahu alimun bi sudur bu dee doomu aadama nag day toog ci ak néeg dégg ñi wax dara du ko dégg wala du comprendre wax ji dina dégg wax ci waaye du ko comprendre wala mu dégg dara génn ci biti fexe ba gis ko waaye déedéet yàlla moom lépp la dégg bala ngaa wax dégg na te lépp la gis ko kooku mooy as-samih mooy déggaakoon bi foo ko jàng ca ci alquran baatab samih mooy njëkk basir innahu huwa samiul basir doo jàng mu ko innahu huwa basiru samih ko moom allatifu mooy aji ñeewantu ji mooy ku bari ñeewantu mu bàyyi ko lutfu lutfaan ya moom gis nga jigéen bu demee ba toll sax ci am doom nga xam ne mit na loolu dañ naan ko wax la yaa latifu yaa latifu yaa latif ci la ko yàlla ñëwant doom ja li ñoo xam ne wax ki ñuy wax yaa latifu moo tax danañ dem ba am doom duñ yëg benn métit ngir gis nga bu ñu amee doom itam lut foog yàlla googu lut faaniyee googu soppee doom bi ba lépp lu ko laal day mel ñoom la yàlla gis nga ba ci bàyyi ma sax da ngay gis ne dañuy fonk seen doom kooku gis nga lut foog yàlla gi na tur wu doyo doy waar la moom mooy àllatif mooy ak ñëwant waaye alxaku mooy aji àtte lépp lépp moo leen di àtte moom yàlla waaye nag alxadul gis nga xam nga bu doon àttekat la rek waaye àttekat bu mànd moo jafe nag ku mel ne Omar Omar ibnu Abdul Aziz ku doon àtte lu mànd la waaye yàlla nag mooy buur boo xam ne alxakamu la mooy aji àtte ji waaye nag alxadul mooy aji màndu ji waaye nag albadix mooy aji fent ji fent mooy koo xam ne la nga fent xooloo ci dara asamaan duune da nga xool fenn ba tax nga bind ko suuf duune ko yow daal lépp yaa ko karee te xoolu ko loolu mooy badiu samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wax la kullu seen wa bikul seen alim war raafiu te mooy aji yëkkatiku ji ko neex waaye nag al wududu mooy soppaakoon bi tey sopp ab jaamam ba ko neex waxoo mooy aji suufeel ka ko wal baasitu mooy aj tàllal ka ko neex al majiru mooy aji tedd ji waaye waxoo moom alxaabiru mooy aji ngëb ko ko neex yàlla arafixon la ku yëkkati ku ku moo la yëkkati arafixon moom kooku ma si ab ba tey misaale ko rek ci Yanqooba ay doomam yëpp kenn la ci yàlla def muy ab yonentu ñi si def yëpp ay anbiya ulañ narfa'u darajaatin man nashaa'u fawqa kulli zii ilmin aliim te mooy yonentu yàlla Yuusuf alayhi salaam kon mooy fekk ñaar ñu bokk ndey ak baay mu jël ko yëkkati ko ci kaw kii. alwududu mooy koo xam ne day sopp ab jaamam ab jaam di ko sopp mooy jaam ñi nga xam ne dañoo jaamu seen borom subhaanahu wa taala bëggalam ci bëgg yàlla ca julli ya ca woor ya ca naafale ca aj Makka yëpp inna si na wa amilu salaati sa yajaalu lahumu rahmaanu wudda nga xam ne dañuy sopp yàlla yàlla soppal leen boppam jam ñooñu degere la waaye alxaafiru mooy koo xam ne ku suufi rek moo la suufil turu turu yéeme la moom it waaye albasitu mooy koo xam ne ku tàlli ku ne ku am ku ne moo la amal moo la moo la tàllil ku am wërsëg ku ne moo la jox wërsëg ba nga tàlli waaye mooy ku tedd ki waaye mooy aji ngëb ku xat wërsëg itam moo ngëb si wërsëg walaahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjoona yàlla nee na may ku ma neex nga wërsëgam ba du am dara wala am tuuti ku ma neex tàlla wërsëgam ba ñëpp na waaw kii fan la jëlee kii moom daa sàcc kana parce que fekkee yàlla mooy maye noonu woowote moom araqib mooy aji fuglu ji mooy koo xam ne lépp lay fuglu lépp ah moo tax jàmm ah, mbiri jaamam yëpp waxuwa te annaafiqu mooy aji jëriñu ji yàlla mooy araqib mooy kuy fuglu waaye mooy kuy nangu ñaan moom rekee nangu ñaan nag mooy kuy yaatu inna laa waasiun alimun waaye yaatal ku ko soob moo ki woomal yaatal yaatu te yaatal ku ko deex waaye mooy kiy dekkal jaam ñëpp waaye mooy kiy taxawee mbiri jaam yi lu ñuy bëri bëri kenn ku nekk ba ci Mali ak bàyyi ma yëpp ci am tabarkalla waaye mooy aji jëriñ jaam bu jëriñu ko ne mi ngi la jëriñoo ci turam bi woowu moom alqawi mooy aji am kattan ji inna laahu warasa xusul xuutul matin gis nga wal matin tey aji dëgër ji mooy jan wal jëlil te aji màgg ji woote moom alwali yi mooy aji méngoo mbiri waaye wal wakil mooy ka ñu wakilu ci moom yàlla mooy xew yi mooy ku am kattan ku am doole waaye mooy ku jam mooy ku dëgër mooy aji màgg ji mooy ki méngoo mbiri jullit ñëpp waaye mooy aji baxal lu ko neex lu waaye man di def ko neex baal ko waaye mooy moom mooy buur bi nga xam ne ci moom rek ku jàq ku dugg ci ay mbir dem ba des wa dara moom rek mooy ki ñu wakilu waaye wal waax yi nga xam bi mu sàkkee lépp dafa wéet ku ko mooy waax yi al muhyi mooy aji dundal ku ko neex al mumitu mooy aji faat ku ko neex al xayyu mooy aji dund dund ji nga xam ne amut faatu waaye wal mutaali mooy aji kawe ji albaru mooy aji baax ji wal xanni yu mooy ji wala ahadu tey kenn ku wét wala ahadu tay kenn al alfardu tey aji wét huwa moom almuqaddimu mooy aji jiital ko ko neex huwa moom almuwaxiru mooy aji desal gannaaw ko ko neex huwa moom almuntaqimu mooy aji fayantoo mooy aji mbugal ji mu ne yàlla mooy waaxit waaye mooy mooy almuhyi di almumitu mooy dundal ko neex faat ko ko faat ko ko neex defe naa ne bindee fi buñ sukkandikoon fii rek dañu xam dundal mooy aji dund dund ji nga xam ne amul fu fu mu tàmbalee koo jël tukuru yàlla dañ naan dundam fii la tàmbale waaye nag mooy ki nga xam ne mooy aji kaw ji ba dara tiimut ko waaw mooy aji dund ji waaye mooy aji kaw ji waaye baax ji waaye mooy alxani yu mooy ku doylu ci boppam walis muy soxlal kenn waaye mooy kenn bi mu doonee kenn mooy bi mu sàkku dara dafa wét buñ na al ahadiya mooy ko xam bi mu sàkku dara dafa wét buñ na al wahidiya mooy ki nga xam ne bi mu sàkkee lépp yéen ba tey dafa wéet moo tax mu ne mooy kenn ku wéet bi mu sàkkagul dara waaye mooy aji jiital ku ko neex waaye mooy aji desal gannaaw ku ko neex ku des gannaaw yàlla desal gannaaw ay waaye nit ñi nañu wakkilu ci yàlla mooy aji fayanto ji lu waaye def lu ko waaye def fii ci na ci xëti mooy yàlla ba ëllëg yamal xiyaama imaamul Buusiri nee na isal karimu taala bisu muntaqim yàlla day takkaayoo turam wu tedd wii di muntaqim di ko fayantoo yàlla nañ ci yàlla musal wasaahiru mooy aji feeñ ji ba lu waaye xool gis ko ci ar rasaaxu mooy aji wërsëgale ji wal waxaabu tey maye waakoon bi wal baatinu tey aji nëbbu ji walis bët di ko gis alfataaxu mooy hubbe waakoon bi wattawaab mooy nangu waakoon tubbi suñu borom moomu mooy ki xool gis ko ci alquran nee ne seen bopp sax bu ngeen ko xoolee man yàlla gis ma ci wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna waaw seen bopp rek leen alquran nee ne ba ci seen gox yi ba ci gox gox yi sa nurihim ayatina fil afaq wa fii anfusihim hattaa yatabayyana lahum annahul haqq ba ilaa aaxiri aaya moo tax mooy aji feeñ ji ba xool gis ca yàlla huwal awalu wal axiru wa saahiru wal baatinu gis nga turam yi borom xam-xam yi dañuy wax ne aaya jooj kenn mënut waxtaane yàlla romb aaya jooj waaye mooy aji wërsëgali ci waa mayewaakoon bi mooy aji nëbb ji ba bët du ko gis nëbb gi mu nëbb moo tax ne bët du ko gis waaye feeñ gi mu moo tax mu naq di gis ba tey ah ndax imaamul Buusiri dana wa min siddati suhóori xafaa bokk na ci taruk feeñ nga ak nëbb fu ne yàlla lu mu moo tax kenn mënu koo gis waaye dafa nëbb ba bët du ko gis la tudri ko lab saar woo yudri ko lab waaye mooy xatti waa kontu waaye nag ah mooy nag waa kontu waaye waxu moom sul jalaal mooy borom màgg ki wal ikraami ak teral ga wa maalikul mulki mooy aji moom nguur ala dawaami ci lu sax de borom màgg ki mooy borom terale gi waaye mooy ki moom nguur nag waaye ci luy sax kenn koo jëlati moo tax ki nga boo déggee suñ toon wa maalikal mulki ala dawaami daa xam ne yàlla nguuram day sax pour yàlla sa nguur du sax wax wa te moom ar raufu mooy aji ñeewantu gi azamado mooy ki ñëpp jëmal ay aju te jublu aj jëm ci kenn al muxni mooy aji doyluloo ab jaamam bu ko neex fa moom al amid mooy santaakoon ay soppeem wala xaadiru mooy ajaam kattan ji al muqtadir mooy ki xattan lépp al waali mooy aji méngoo mbiri jullit ñëpp arasit mooy aji jub ji ci yàlla ne yàlla mooy ku bëri ñeewantu ki mooy koo xam ne ñëpp dañoo màmmu jëm ci moom di as samadu te kenn màmmul jëm ci kenn kii doyluloo ab jaamam bu ko neex fa moom mu géejal am xéewal ba du soxlaal kenn léeg-léeg am na ci jàmm ñoo xam ne soxlaaluñ kenn soxlaaluñ daray kenn parce que leen yàlla jox doy na sëkk waaye mooy ki kii santaakoon ay soppeem yaa ayuha naasu antumul fuqara ilallahi wala huwal qaniyul amin alqadiru ak muqtadiru kalimataani mutaraadifataani lañ mooy koo xam ne lépp la man tëliwu dara alwaali mooy ki méngoo mbiri jullit ñëpp waaye nag arasin mooy ku jub koo xam ne tabaarkalla wëlis ak dëngate di nekk ci moom wa huwa tama alkabir mooy aji màgg ji wal xafisu aji wëttoo wal xafur tey bi wa huwa moom yàlla moom aji xont mooy ko jàpp mu doy la wa huwa tamam almaaniho mooy aji tere bépp musib bu nar ko neex walance bi mooy aji màgg ji wa huwa te moom yàlla moom aji jaamam mooy kii dajalwaan ñëpp mel ni pénc nee yàlla mooy alkabir mooy ku màgg doon alxafis ku wëttu ku ne ci turam boobu lay wëttee waaye doon fóotkatu bàkkaar bi doon almuqitu mooy kuy xont ay jaam di leen jox ay xiiwal doon alxasibu mooy koo xam ne ku mooy ci moom bi lépp walillahi mira samawaat wala wala bi maatamu noon xabir gannaaw bi mu tukkulee adduna lépp moo leen di doonaat waaye mooy ki gis lépp waaye mooy ki nga xam ne mooy almaaniho mooy aji tere bépp a wàcce léeg-léeg jaam bu ñaanee rek suñu borom delloo musiba moom dootul wàcc laa yarudu xadru ila doxaawu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dara mantu delloo am musiba bi wàcc lurut ak ñaan waaw nee na léeg-léeg nit dana ñaan rek fekk yàlla mu ngi bëggoon a wàcc a musiba ci moom rek su ko defee yàlla delluwaat musiba moom mu nekk ci asamaan si tiim ñi di bëree ba keroog pincam waaye ji mooy aji lor ku ko neex waaye di aji màgg ji waaye nag mooy aji dajalewaat bépp jaamam innaka jaamiun naasi li yawmin laa rayba fii inna allaha laa yuxliful mii'aad bis boobu nga xam ne alquran nee na amul sikki ne dana ñëw kon bis boobee tabaarikallaa yàlla nañ ci dem ak jàmm <laughs> ndeysaan yàlla moom nee na dana dajalewaat ñëpp amul benn sikk waaw rendez-vous boo xam ne amul posé wu inna allah laa yulful mii'aad waxe yàlla moom lu matala wax wate moom yàlla almuqisu mooy xettale waa kon bi alxaqu mooy dëgg wal muxti mooy aji joxe ji wa nuur mooy leer subhaanahu tudd na mag sàllam jàlla mu muy aji mag foo moom alhaaji mooy aji gindi ji assaboor mooy muñaakoon bi yàlla mooy almuqis almuqis mooy buur boo xam ne ko am xettal mooy ki la xettal bul bàkku nit lu mën a nekk ba génn ci la yàlla ko ci génn mooy dëgg moom rek lañu war a jaamu te moo ko mooy aji joxe ji waaye du joxe mukk ba noppi bëgg déer bëgg nga nga nga fay ko déer moom daal lu bëgg rek nga jaamu ko yaa man afaada bi la kiraay waaw bokkut ak gaa yi ni ñuy def léeg nga luye kër di soxla di weer dee la ñuy fay la yàlla du def noonu yaa man afaada bi la kiraay jàngoon nañ ko ci maway bu naafee mooy kii fayantoo bi la kiraay mooy ki nga xam ne dana jëriñe bi la kiraay suuru muy séntu ak fay nga xam ne nit ñi ni ñuy def léeg-léeg ku lu yaa sa néeg weer dee nga ñëw tax na ah, saa weer dee na yàlla moom almuxti la waaye mooy leer mu ne tudd na masala moom yàlla moo mooy aji màgg ji mooy aji gindee ji ku moo la teg yoon siraatu mustaqim bul ndamu wa inna laaha laa haadii ilaa siraatu mustaqim waaye nag asaboor mooy mu ñàkkoon bi kon turu yàlla yi moo nekk ni 99 yi dégg na day yàlla di ñaan borom subhanahu wa taala ak di suufeel boppam ci kanam yàlla xam ne yàlla moom rek mooy yàlla su ko defee ñëpp ay jaam lañ loolu incha allah sunu bindab suuf bi lay doon bëgg ñi toppee yàlla na yàlla defal dégg topp a ak tawféex